ngir itam euh, seetaan émission bi waaye nam topp programme mu Almouridiyyah TV lu aju bëpp ci euh, gàmmu gi fii nii lañ nekkoon ci Tivaouane ngir itam dégtal leen euh, waxtaan gu am solo gi léegi léegi itam suñ ci jógee am na beneen plateau boo xamante ne Mor jaxaate dina ci dikk léegi ci arab ndax xam ngeen Almouridiyyah TV arab la olof la anglais la ak français jërë ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf Sane alhamdulilah alhamdulilah bu fekkee kontaan ngeen rek alhamdulilah parce que loolu mooy objectif bi kontaan nañ ndax recherche